que yaay yëpp doom dina daw si ñëw ci ñoom yaay lii est ce que tal nañ toppatoo seen doom yi bay toog ba leen di conseiller loolu. waaw c'est à voir parce que xam nga déjà. Mhm. léegi da ngay gis ni xale yi sax ku ci gis règle moom mooy jël moom mooy jël boppam en charge. waaw ah, c'est ça. da ngay jékki rek sentir ne xale bi waaw kii kañ la gis règle ah. parce que waajur yi amatuñu temps boobu ci xale bi. Ah, te xale yi tamit ci seeni moroom dañuy dañ ciy déggante dañ ciy waxtaan. Mhm, mais dafa mhm. am loo xam ne dafay nekk te du fi jóg. dëgg la. parce que tey da dégg xale boo xam ne damay gis règle temps de jours day bari tellement que. Mhm. nga xam ni kii xëy na peut-être ñun cosaan bi ñu suñuy waajur defaloon. Mhm. ba suñu gis mbaax suñu ñetti baaraam yi jarul jarul jarul xeeb. Mhm. jarul xeeb def ko ci inde def benn def ñaar def ñett parce que ñi bañ règle bi exagéré. mais n'importe euh, mais qu'importe di nga def benn ñaar ñett mais léeg-léeg benn ñaar ñett boobu maanaam lu bari li fa lay yem li ci des yuy génn la. ok maanaam il faut mu nekk juróom-ñaari fan. pour mu ay bareetul man lu raar nga may wax compte inde <laughs> bareetul uh-huh. parce que ñu ci bari tey jii foog nañ ni euh, dañuy bàyyi xale bi rek ak école bi école bee koy xamal lépp uh-huh. parce que xale ba xale yi koo ci wax mun la jaf def naa écofam genre boo defee écofam donc am na lu bari loo xam ne comprendre nga ko ci sa bopp yow te fekk na am na loo xam ne cosaan la uh-huh. cosaan boobu waruñu ko wàcc waruñu ko bàyyi dañ ko war a di continuer di ci parce que xale bi loolu dafay des ci xelama ah. man tey loolu ma sama yaay defal dafa des sama xel ba sama doom bi mu demee ba toll ci âge ba mu demee ma toll ci étape boobu pareil li ma sama yaay defal moom laa defal sama doom mm-hmm. parce que lii sama yaay man lii la ma tàggatoon ci lii la ma wanoon donc lii ma sama yaay wanoon mm-hmm. man lii laa war a defal sama doom te boo paree ci sangu si ciital ci loolu dafa am leneen mm-hmm. mooy xale bi doo ko ne nii nga war a def da lay xamal nag ni la su boo nee ba say règle jeex ba nga dem ba sentir too ba nga sentir ni sa kanam lu weex rek moo ciy génn lu weex tàll mhm. parce que ñetti fan yi bu passé da ngay sentir ni mhm. ñetti fan yi euh, deret bu bari bi arrêté na mais mhm. teewul dafay am luy continuer di génn ci ci yow li continuer di génn ci yow nag soit dafay nekk loo xam dafay dafay dafay xàll maanaam weexu weex bi à cent pour cent du fa nekk tant que demul ba weex tàll amoo sañ-sañu sangu set waaye bu demee ba weex taal nag bu la nee même ci journée bi genre nga sentir ne ci diggante journée bi. Mhm. weex na da daal di dem nag fas yéene sangu set. sangu set sangu set surtout loolu. waaw ami collègue ñu bari xamuñu nu ñuy sangoo set. waaw des fois dama naan est-ce que parents ñoo leen ko jàngal parce que comme li nga wax léegi léegi doom soo ko waxee gis nga say règle sangul defal li am na ñoo xam ne pour ñoom sangu set sangu saabu la ak ñàmpe ba set non sérieux ñu bëri xamuñu nuñ koy sangoo loolu tamit wala ñu ko jàng wala ko jàngal seen doom yi. xam nga xam nga ndeysaan ce qui est li li doy waar mooy. Uh-huh. Euh, ñun dañoo nekk ci benn euh, dëkkuwaay boo xam dafa xaw a dafa xaw a sensible. Uh-huh. am na yoo xamante ni boo koy booy nekk di ci wax sax. dëgg la dañuy yaakaar ni daraa tax nga di ko wax. Uh-huh. waaye réew mi dafa yàqu. dëgg la parce que lu ci toll ni jullit boo demee ba mënoo sangu set. war nga mën a xoolaat sa bopp ah, surtout. ak réew mi fi mu toll nga xam ne lu waay bëgg a gis. Mm-hmm. lu waay bëgg a def boo tàppee internet ñu won la ko. Mm-hmm. sangu set bi boo tàppee internet def sangu set ñu indil la lépp luy ñu indil la ko nii mu nekk guro ci sa kanam. dëgg la même say parents la ko jàngalee mais parent bi moom moo war a xaar. doom di dem di xool internet pour mën a xam naka la ñuy sangoo set. mais ñëpp yemuñu. waaw ñëpp yemuñu foofu la fi foofu lay fi nekk nag foofu la problème bi nekk. Mm-hmm. foofu. fa la bi nekk. Mhm. parce que loo ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk jot. Mhm. waroo ñàkk jot bay ñàkk jot ci sa doom. dëgg la waroo ñàkk jot bay ñàkk jot ci sa doom pour wan ko lan mooy lii wala lan mooy lii wala lan mooy mhm. laa. yaay parent dafa war am benn ouverture par rapport a ay njabootam. la parce que ouverture boobu bokk na ci luy sauver xale bi. parce que xale. day tënku ba léeg-léeg waajur bi da koy tënk ba du mën a am benn ouverture bi pour mën di exprimer di mën a waxtaan ak moom yenn yi. yaayam dëgg la am na. te yaay moom mooy njëkk doon xaritu doomam. dëgg la en première. Mhm. lu jamono metti metti metti metti metti ak lu jamono compliqué compliqué compliqué ba nga dem ba yow sa bopp taloo sa bopp sax. Mhm. war nga mën a am benn lu ndaw loo xam ne say njaboot ñoo ko dañ lay tal. dëgg ñun parfois bu liggéey bi métti ba métti ba métti ba métti ba métti ba mm-hmm. da nga war a wëlbatiku sax ni say njaboot ay waay baal leen ma de mm-hmm. du question baal leen ma àq mais baal leen ma ci le fait taluma leen wala baal leen ma ci le fait ngeen bëgg maa gis te gisu ma mm-hmm. ndax doom dafay soxla waay juram ah. doom dafay soxla présence waay juram parfois nag dañuy topp wutu bi topp am am bi topp daw bi te la ñuy daw lépp ñoom ñoo tax ñu koy daw xëy na tey bu doon sa bopp kese dawoo. dëgg la waaye ñoo tax léeg-léeg ngay daw. Mm-hmm. say njaboot ñoo tax ngay sonn. Mm-hmm. ak it ñi nga xam yàlla boole na la seen wërsëg nekk ci sa loxo. Mm-hmm. ñoo tax ngay daw ñoo tax ngay sonn waaye lu ñu daw daw daw daw daw daw nañuy geesuwaat di bàyyi xel ko dafa am njaboot ku ñu yàlla dénk. dëgg la parce que li may wax rek mooy. yàlla bu la joxee benn bant ci àdduna sa santee ko ndax am na ñoo xam ne tey buñ mënoon a rassembler lépp lu ñu am ci àdduna mhm. teg ko ngir am doom dinañ ko def kon doom jooju du du du yàlla la koo jox nii rek mhm. dafa nekk benn responsabilité bu diis parce que yàlla li mu moom alalam moom mu yëkkati ko moom subhanahu wa taala jox la xam nga ni kon yàlla teg na lu diis loo xamante ni dafa am lu la war ci moom sa benn xarit mag safara maareen mhm. yaayu yaayu bébé Mohamed mhm. dañ ma sa waxtaan ci ci doom mu ne ma ami kolle ma ne ko naa mu ne ma est-ce xam ne boo amee doom sa amatoo sañ-sañu nelaw mhm. ma ne ko wax nga dëgg màgget mu ne ma say nelaw day day day disparaître mu ne parce que tout le temps yaa ngi xalaat ci xale bi tout le temps yaa ngi naan waa nee na ma damay jékki-jékki ne am ko boo bébé Mouhamed fan la war a nekk mm-hmm. mu ne tellement que dafa am benn responsabilité bu diis boo xam ne suñu borom bu la joxee doom jox na la ko mais euh, grande sœur bëggoon naa xam est-ce que nekkul tamit euh, doom soo ko juree ba mu dem bay waaje majeur waroo ko woo waxtaan ak moom ne ko di gis règle soo tolloo ci at tel moo gën doom di dem ba si yaayam naan ko yaay am na luy génn sama kanam. ak dafa jar muy màgg avant muy màgg déjà war nga ko ni carrément ah, am am na yaa ngi toll ci âge parce que léegi boo xoolee. xale yi mhm. bari dañoo teel gis règle. parce que bu njëkk da nga gis ni xale peut balaa daan gis règle day am mhm. xale yi dañuy gis règle. donc xale bi yaa ngi ko war commencé tàggat à de 10 ans. Mhm. sa doom la teg ko sa wet di waxtaan ak moom. rëy ci sa doom am ñoo xam ne dañuy complexe wax seen doom yenn yi même seeni doom suñu dee sëy sax dañuy complexe wax soo demee defal lii sa jëkkër defal lee sa jëkkër ñoom dañu lay bàyyi rek nga dem ba sax say mag wala ñoo xamante ni say mbokk lañ wala say am di jàmm lañ ñoo obligé naan la defal nii defal lii defal lii. fa la erreur bi nekkee. Mhm. diggante waajur doom ak yaay amul complexe bu ci nekk. diggante yaay ak doom diggante yaay doom du mooy amul complexe bu ci nekk am na ci waajur yoo xamante ni amuñu complexe pour waxtaan ak seen doom nday ndaak caam yaay awa mbaw mbaw ngaa la sama rakk jooju mm-hmm. nday ndaak day toog nii awa mbaw toog nii moo koy expliqué yaayam macha allah naan ko defal lii defal laa ah nooy def yaa ngi def lii yaa ngi def laa mooy wane ni mm-hmm. waajur ak doom surtout ma doom bu jigéen dafa war am benn complicité ak yaayam doom bu jigéen ak yaayam waruñu am sujet bien vrai que am na loo xam ne doo ko wax sa doom mais am na loo xam sa doom mënoo ko ko nëbb mm-hmm. da ngay waxtaan nag moom xamal ko ni ko ah dugg nga ci néegu sëy amal comportement bi defal ni defal ni dellalal sa jëkkër dara bu weex del defal sa jëkkër lii del defal sa jëkkër laa tax jëkkër jëkkër sang la mm-hmm. expliquer ko bu ko defee xale bi même bu fekkente ne ni mi ngi ci biir kër gi sax nekk fa ak yaayam ak papaam mhm. am na benn comportement boo xam ne boo ko gisee ci waajuram mhm. dina ko permettre moom ëllëg bés bu duggee ci néegu sëy danaan ah sama yaay kat nii la daan defal sam papa nii la daan defal sam papa nii la daan defal sam mhm. kon xaaral man tam ma def ni lañ jolee taal naan doom doom ndayam da caa dëgër bu koy nampal da koy xool mhm. yaay yaa daan li nga daan defal sama baay li nga daan defal sama baay moo lay wan ni doom bu jigéen jàngaaniwul ndayam mooy royukaayam dëgg la lépp loo gis sa waajur bu jigéen di ko defal sa waajur bu góor mhm. boo màggee ci tànk yooyu rek ngay jaar mhm. ñi ci amul sens nag mooy ñi nga xam dañoo fekk peut-être seeni waajur taqalikoo dëgg la ba ñoom du ñu mën a xam naka la ñuy defee mais teewul yow yaa ji xam dee ko di ko wax xamal ni ko ah àdduna sama doom nii la di faut te comporter comme ça yaa sa jëkkër del définir sa jëkkër yow sa bopp sa hygiène bopp na nga ko jël say slip del éviter di ko wer ci ay salle de bain. surtout loolu dafay joxe infection day joxe infection. voilà slip parce que amul tàng lañ koy weer. merci slip ci mhm. naaj bu tàng lañ koy weer. Mhm. soo mënta boole yëpp. dajale ko. voilà amoon naa benn copine boo xam ne noonu la doon def. waaw moom dinaa jël ay silib dajale ko ba mu bari di ko sumb fóot léegi su ma ko fekkee gën a dama koy reetaan mu ne ma lii moo baax parce que su ma dee fóot pour benn benn du baax. daf koy fóot weer ko di ko paase. sama petite li may <laughs> ami Kole Diallo noonu lay def bu xëy bay war a fóot ay day mel ni kuy fóot lu important. noonu lay def day tàngal ndox ba mu tàng sotti ci. ci biir def omo def eau de javel fóot ba mu pare su paree ndeysaan da koy weer ci ligne bi benn bu nekk mu képp ma ne ko mbete lu baax. <laughs> ne ko lu baax la <laughs> ma ne ko lu ba yaa ngi may tooñ a teel. <laughs> mais da xam ni parce que slip dafa nekk lu gën a am importance ci doomu aadama parce que ci partie intime bu garaaw la nekk. dëgg la fi nga koy fi fi fi la suñu borom nat dimbalee. Mm-hmm. ci côté boobu nga xamante ni dafa xaw a doy waax. Mm-hmm. lépp lu fa waay di def rek bay ba mu nekk loo xamante ne nii dafay ànd ak hygiène. Mm-hmm. sinon après finalement ay infection la lay jural. dëgg la léegi da ngay jékki-jékki gis xale bu ndaw buy dox nga naan xale bi lan lay wokkutu pourtant xale bi xamul sax góor bari na léeg-léeg nga gis ko am infection koo xam ne xamul góor dëgg la parce que infection dañuy wax ne en général góor rek a koy joxe mais am na ñoo xam ne xamuñu góor te dañu am infection mhm. parce que li leen koy def mooy manque de hygiène moo koy def mhm. genre jël benn jël benn nan laa ko mën a waxee jël benn benn prothèse teg ko vingt-quatre heures yaa ngi indisposé jël nga benn benn benn serviette hygiénique teg ko ci diggante bi xamoo ne war naa ko war naa ko war naa ko changé mhm. nga dem tour ndox ci ci douche bi peut-être jëloo mouchoir mën na joxe infection dëgg la parce que partie intime dafa xaw a sensible le moment où bi nga xam ni pare nga say règle nga war a wàññi sa karaw parce que mhm. karaw tamit bokk na ci li nga xamante ne nii léeg-léeg day joxe sax mauvaise odeur bu bon ci ci kanamu jigéen dëgg la nga wut sa sa nga wut sa mouchoir fomp sa kanam mhm. ba mu normal soo paree bu fekkee am na ñoo xam dañuy def protège slip nga def sa protège boo deful sa protège slip mhm. jëlal sa mouchoir sa lal ko teg sa kanam mhm. nga daal di am hygiène journée bi da ngay daal di nekk mais li gën a bon mooy nga jékki-jékki rek santir xale boo xam da lay traversé rek waaye ma ngay wokkatu xale ba deful dara de waaye juróom bu jigéen moo ko def des fois tamit seen euh, li ñuy jiital ñoom xale yi bàyyi koy dañ koy sol tey summeeku sangu solaat ko heure boo sangoo war nga changer mais am na ñoo xam ne xale yi dañuy sangu ndeysaan seen i yaay yi man a naan amuñu toppatoo surtout baa nilon daal koy solaat baa nilon xale bu jigéen bu ko ci moytuwul forox ngay dëkkee baa nilon baa nilon mhm. parce que baa nilon mhm. dafa mën a dafa nilon la du coton du coton donc li ngay dox ci naaj bi yëpp benn ndeysaan benn pas dafa mësti da ngeen a comprendre de ma ne ko mhm. waa mu ne ma waaye jigéen euh, sër rek la war a woddoo <laughs> maadu ma ne ko <laughs> papa lu tax sër mu ne parce que sër mu ne ngelaw liy dugg ci yow. dafa am mhm. lu muy def ci yow. Mhm. man mais dommage que ñu ci bari wootootuñu sax parce que aussi ñu ci bari li tax ñuy sol baa mooy dañuy protéger seen c'est parce que seen ay tànk dafay frotté wu. dëgg la waaw donc buy frotté wu du leen arrangé mhm. ba ba pare buy frotté wu daf lay def daf mën a la def booy wala mu def la genre ay ay picc ci ci ci ci ci diggante boobu parce que tey boo xoolee ñëpp am poids ñu amul poids bariwul bariwul donc boo amee benn poids bi ci obligé ngay sol baa mais baa bi ngay sol aussi mhm. mais na baa bi am hygiène mhm. moom bu ko di sol tout le temps sax di ko fanaanoo bu ko di sol tout le temps. di ko fanaanoo ay benn baa ay ñaari baa. da nga war a wut ay baa yu bari bu la bu la yàlla mayee possibilité bi sax. laay wax bu la ko yàlla mayul nag ci la la yàlla may. même su la mayee ñaar rek nga di ko fóot. Mhm. nga di ko fóot ba mu set. boo xëyee weer ba mu wow. boo waree xëyaat sol ko nga xël ko nga xëy ko solaat ko. kenn obligé wul kenn wut cinquante deux baax ndax mhm. moyens yi du ñu benn dëgg la mais lala yàlla may kus néew mhm. fexeel di ko fóot ba mu set mhm. nit yàlla may na ko mu am benn yére wala ñaar mais heure bu koy sol day set ndax day sentir que ni moom kat lii tilim la ñoo xam ne tamit ci base bi lañ ko tàmmee